même soo ma déglu la hmm. bi ci njëkk mooy dama dama dama recensé lu ñuy wax ay incohérence yi livre bi parce que am naa temps lire ko quand même inco incohérence yi mooy lan bi ci njëkk da nga da ngay jël benn projet Macky exemple li ñuy wa euh, centre de conférence nga wax ne centre bi ni ñu ko libéré ni ñu ko tëggee baaxul ba nga waxee loolu ba pare booy saluer li nga xamante ne mooy réalisation yu baax yi président def da nga ko ci boole naka la journaliste parce que il s'agit bu fekkoon keneen la mën naa ko comprendre mais journaliste yi naka nga mën a ñaawloo mauvaise utilisation de l' argent public ba pare nga boole liñ ci réaliser ci réalisation yoo xam ne dañ ko war a saluer beneen bi mooy Pape Alé Niang mi nga xam ne da nga da wax ci livre bi que ne waroon na excusé wu parce que li mu bind wala li mu wax du noonu waroon na génn mu def son mea culpa mais yow sa bopp en deux mille dix huit da def benn. texte accusé Ousmane Sonko que ne dafa am ay liaison ay connexion dangereuse avec Tullow Oil Tullow Oil ci boppam génn def communiqué pour démentir ça mosuñ la dégg yow nga génn daan wax ci loolu pour que nga jéggal ko yi ngay wax Pape Alé est-ce que ni nga bindee ci Ousmane Sonko ci corniche bi bindoo ko ci Tullow Oil sénégalais bu nekk ci biti ba la déggee est-ce que du jàpp ne da ngay acharné wu d' accord merci beaucoup. Mame Mbaye Niang pour finir. ah non est ce que Mame Mbaye Niang li ñu ci wax est ce que yow jàppoo bi du leen lu dul est ce que boole mën nañ ko waxtaanee ci ñaari avocats est ce que yow dafay wax ne da nga a wax ne yow xamoo na lii dañ ko def pour délibéré Ousmane Sonko merci. merci ok bon. donc on va je vais répondre en deux temps c'est-à-dire que damay damay damay damay répondre damay répondre ci wolof après ma ramasser réponse yëpp ci français parce que y aussi la presse internationale ok donc dafa am ko ma laaj ni ma dafa am ko ma laaj ni ma dama ne Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang mën nañu régler seen problème par les avocats daan ni mën na jaar par démenti walla rectification wala dara est-ce que dama jàpp ni donc Ousmane Sonko li mu jiiñ Mame Mbaye Niang c'est pas fondé li may doon ci question boobu c'est très simple dama ni démocratie yu moderne yëpp man yi ma xam te yàlla xam na ni nag am na yu ma ci dem ok question diffamation yëpp rarement lay àgg ci tribunal léegi rarement lay àgg ci ñu dem ba koy àtte mi ngi noog question commerciale fi mu toll nii. Euh, tey boo amee problème commercial France ak nit ngeen dem tribunal juge bi daf naa leen dem leen fa fële ngeen wax bu ngeen waxee ba pare ngeen jubóo ci benn affaire ngeen bind ko ngeen ñëw juge bi homologué ko loolu moo xew ci àdduna bi léegi maanaam Sénégal y a un excès de judiciarisation maanaam lépp dañu jàpp ni wàllu plainte moo ko war a réglé wala wàllu xuloo wala wàllu xeex alors que ci démocratie nga xam ne ñii dañuy waxante bis bu dee ñii wax ñii ñi mais man attends man lay gaari Pastef laa li ñu li ñu ma waxal yëpp depuis bi di bi génnee lépp ay fen su ma leen porté plainte fan lañ jëm parce que li ñu wax yëpp ay fen la mais du loolu c'est que démocratie nit ki du joxe opinion nit ki du joxe opinion nga ñëw tegal ko plainte déedéet je pense que opinion du plant moo koy tontu moo tax ma ni seeni ñaari avocats yi bu ñu gisee woon. mën nañoo juboo ci formulation boo xam ni texte la boo xam ne dañ ko publier mu régler problème bi soxla wu ñuy dem ba ci attente parce que loolu moo xew feneen te loolu laa gis aussi ñu koy def Issa Sow mu ni histoire de la corniche 2012 est-ce que duma ko mën a xam nga Issa nag man mënuma bënd livre ba pare ñëwaat di ko commentaire parce que après day nurul leneen au fait yaa ngi bind livre ba pare ñëw ni dangay ngay commentaire surtout seen question aussi polémique bàyyi leen sogale yi yéen it. non leen sogale yi waay. bon. Ngone mu ni Seydou Seck et Moussa Dalis Camara dama lay Ngone dama lay reporter ci benn article rek boo xam ni dama lay reporter ci benn article boo xam ni Jeune Afrique moo ko bind après bi Dalis waxee li mu ba pare article boobu. dinaa la ko yónnee avec tous les éléments François non danaa ko bind non loolu dafa dafa existé boo demee recherche ko gis ko François Souda moo bind benn article boo xam ni fii jeunesse jaar Moussa Dadis Camara li xew sama digganteeg moom li xew digganteem ak Cécile Sow nga xam ne sénégalaise la aussi à l'époque mu nekkoon journaliste Jeune Afrique demoon Guinée lépp a ngi ci biir xam nga la dinaa la yónnee élément yooyu ñëpp gis lan moo xewoon ant man ak Moussa Dadis Camara bu baax avec plaisir yaa Moussa ne ma est-ce que qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Asbjorn ak man yaa Moussa non non non non jabar la dama ko takk te fan fas yàlla ak soxna Mohamed ñuy sëy képp ku ci wax leneen lu dul loolu wax nga loo xamul foofu laa yem. non bu indil ma indil ma affaire u Cheikh Ahmed indil ma affaire u Cheikh Ahmed di wax ni ma Cheikh Ahmed Cissé bi mu génnee dafa am lu mu wax man li ma wax ci Cheikh Ahmed Cissé lu ma gëm la dama ni Sénégal léegi. dafa am benn triptyque triptyque boobu mi ngi tudd triptyque boobu mi ngi tudd lan laa ko woy ci livre bi parce que loolu c'est important parce que problème mu problème mu problème mu Ahmed Cissé dafay wane loolu ci Sénégal ni muy doxee maa ngi bind ci nouveau type de sénégalais bi mi ngi tudd maa ngi ko tuddee la triptyque infernale jabolisation liquidation mooy lan tey bu ñu la bëggee liquider Sénégal dañuy xëy suba commencé di la attaqué toog ba jàkk ñu diaboliser la maanaam tam la dëmm da xëy suba rek nekk sous mandat de dépôt loolu ne Ahmed dafa wax lu leer daf ne man jullit laa wax loo xam ni sama diine la jëm bu fekkee dama tooñ. dañ ma war a woo yedd ma wala ñu wan ma lu tax ma tooñ ak fan laa tooñi mais ma wax li ma wax kenn woowuma kenn woowu ma ci xam-xam dañ ma jël yóbbu ma ci procureur boo xam ne li muy àtte du charia mais loolu mais loolu wax bu ñu mën a dégg la xoola par exemple maam Matar maam Matar bu jàmm Guèye chaque jour mu critiqué nit ñi wax nit ñi lu ko neex ma wax ci livre bii ni ni mu doxale ci Ahmed Cissé bi ñu waxee ci biir waru woon génn ci biti baaxul mu jël tàkk micro yëpp di ma attaqué kooku léegi dëgg lay doxal diine lay doxal wala problème mu boppam lay gérer nañu waxante dëgg moom mi ngi attaqué nit ñi depuis que bi ma ko xamee doomam rek la attaqué bi mu amee problème attaqué nañ ñëpp ba mu des doomam tu comprends mais après yow ñu ni li nga joxe waroo ko doxale rek nga jël micro yi lu ne tudd na ma nee na manipulateur la lan lan laa manipuler man manipuler man dama bind li ma xalaat ci moom dama ko bind mu leer naa ñi loolu manipulation ban manipulation ni muy doxale d'accord ma ci parce que nit ki aussi kenn du ko yedd ci mbooloo Mame Matar Gueye dugg naa ñëw naa prison mu ñëw seetsi ma ñu wax ba pare mu ñëw seetsi ma prison laaju ma ko xaw ma mooy kan mu génn def interview nit Cheikh Yérim Seck wax naa ak moom nee naa ko mu présenté ay excuse mais xoolal xoolal boobu xeetu ñàkk sutura man nga woowuma la prison néew ma na nga seet si ma nga ñëw seet si ma génn takk rajo yi di wax mais méthode boobu moom il faut mu bàyyi ko léegi nga ni ko méthode boobu baaxul parce que wax nga ak Ahmed Cissé mu wax ak yow ci tekk ak teraanga nga génn weer ko mu braqué nga dem tëj lu ko ba pare continuer di ko attaque loolu ñu wax la ko. nga ni noonu da nga tëkk takk micro yëpp di attaqué bi yow kon diine ngay doxal wala yàlla ngay doxal wala dëgg ngay doxal wala yow sa personne sa bopp moo la ñor il faut que les gens tax gis nga chapitre bi ëpp importance ci livre bi te Sénégalais yi liiruñu ko mooy le nouveau type de sénégalais. loolu moo tax xoolal man dinaa dem ci télévision yi pour wax naruma koon sax wax gis nga libre bi il faut ma leeral ko sénégalais parce que documentaire bi doyul. ah non non no no non il faut nit ñi lire le nouveau type de sénégalais parce que xam nga affaire dañu jël ay polémiques yoo xam ne amul solo pour jéem a nëbb li li nekk ci libre bi mais li nekk ci livre bi yëpp dinaa ko wax ba mu jeex takk takk takk takk takk takk takk voilà yi parce que chapitre yëpp dinañ leen jël bu nekk nañ ko liir en français dugal ko ci YouTube bi chapitre bu nekk nañ ko jël traduire ko en wolof dugal ko ci YouTube bi. ba pare temps bu mu laaj pour dem ci télévision yi pour dugg dans le détail du livre dinaa ko def kon man xam nga du ma nit ku ñuy xoqtal daal voilà beneen affaire bi mooy euh, affaire Bouba Ndour saa yi nee na ma Bouba Ndour Bouba Ndour du ma tontonte ak moom vraiment. ah si mais non tontonte xala dafa joxe regard non dafa naan wuyu xam nga lan mooy sam man dama bind livre ok ku ne. na ci wax wala mu ci xalaat ko ci lu ko neex aw ma ci problème man tant que saaga woo xam nga man xoolal la preuve ñi ma ñi sama discours liminaire ñooñu ñëpp li ñu wax ci d'accorduñ ci li ma wax mais respecté naa li ñu wax. non non non boobu noonu même bu ma doon toog moom plateau garaawul xam naa ni maa ngi doon toog moom plateau jàkkaarloo tu loolu yëpp xam naa ko mais garaawul xam nga na wax lu ko neex man awma ci problème voilà. xam nga li yàlla nañu yàlla musal ci nga bind livre kenn waxu ci livre na ñëpp wax wax ji lu mu gën a baax mu gën a bari lu mu gën a bari mu gën a baax parce que succès la boo xamul